Serigne Omar Dem dëkk Thiès fii ci Grand Thiès quoi. xam nga loolu dañ ciy sant yàlla sant ci président ndax président aussi mooy xool ku ku mu neex mu ànd ak moom liggéey mais ñun Thiès lii ñëw war nañ ci gis suñu bopp ndax jii nekk fii di ko jàppale sonn nañu lool te yàlla rek a tax may wax ñoo xam ne jël nañ seen alal def ko ci parti bi def ko ci APR te amuñu ci dara ñoo ñoo bari na mel ni Ablaye Dieye tey sonn na ci soo xoolee lépp lu am fii dugal na ci loxo ah amul kees tey kenn du ne Ablaye Dieye tey benn mu gën a liggéey mouvement am à Thiès loolu amul Thiès tey te nit ku baax la nit ku yarul la man nag yàlla dimbal ban ci mouvement yi laa féete bañu ma bennoo bañ ma leen ndax ñoo bokk xëy na daa am ñoo xam ne bokk ma ak ñoom gis-gis waaw te du ñu def dara ba woo ma ma séddale dara bañ ne ma kaay jël man li ma ciy daw yëpp ma ci am dara waaw mosuma am ci benn dara wax dëgg yàlla. pour Macky am waa Thiès waxuma la ministre am am nañ ministre mu yokk ministre jox leen ay direction waaw su ko deful waruñu ne résultat amul mën nañu ko jox résultat à Thiès. mais il faut mu jox leen ay direction mu am lu mu bëgg à Thiès man loolu laa këm ndax Thiès du dëkk boo xam ne war nañ ko sàggane am na ñoo am na ñoo xam ne nag bu leen dégloo Thiès du am dara mais nag waa Thiès ba ñu ñu Macky président la mën na li mu doon mais dañ ko jàppale wu nu mu waree daal bu buñ ko jàppale nu mu waree problème yi yi am yëpp du am ci réew mi non am na ñu mu nekkal ñoo xam ne yëpp boo demee am na ñoo xam ne jàppale wuñ ko man amul ku ma waxalul ci Sénégal ci problème mu Thiès ah, man amul ñu ma ci problème mu Thiès mais Abdou Mbow man sama jarbaat la te Abdou Mbow bi sama doom wàccee liggéey ñëw na fi jaale si xëy na nag bëriwul ci man ay tànk ma bariwu ma ci moom ay tànk mais su ko tabee dañuy ñaan yàlla li mu ko tab yàlla na ko jig même bu ci naroon am gàllankoor yàlla ko ci yàlla musal mu am ci dab loolu dañ ko ko jaadal xam nga lu ma la xam nga man daa am toujours lu may téye nit xam nga nit fulla laa lay ak fayda gis nga Maodo Malick Baye du am fulla la fulla fayda personnalité du dugg ci dataay te def naa tey boo dajalee mouvement yëpp mouvement moo mag gëm sa bopp moom bi muy jàppale Macky kenn jàppalewul Macky dégg nga moom Maodo man kees mu jagre rek laa bëgg soo gisee man dama commencé sonn euh, sonn mooy man duma nangu ko ma accaparé doo dem fii doo dem fee loolu kenn du ko defal man ku ma woo ma wuy la bañ da keroog Ndeye Tické bi ñuy dem di yóbbu ay taraangam ci kër diine yi damaa dem ànd ay nitam te Ndeye Tické yàgg na def loolu ci biir Thiès amul est amul ouest amul nord dama dem ànd ak ñoom ca guddi ga laata maa pare ci laa ñëw euh, docteur Djibi Sarr woo ma mu ne damay dem jàkkee tukulóor dama bëgg nga ma ma ñëw ànd ak moom ca guddi ga sama doom di sëyi Ibrahima Wade woo ma damaa yabal sama rakk ma ne ko toppee sama xarit bu ñëw na fi ñaanal ko ndax Mor Gueye lu mu ñëw mel na ni moo ñëw Mor Gueye ñëw ñaanal ko mu dem sëy mais fii laa leen bàyyi dem ànd ak Ibrahima Wade te Ibrahima sama xarit la yàllaa ñu boole man samay ordonnance sama yëpp Ibrahima Wade da ko yor ma wax ko tey ah Lamine Aïcha tey ñëpp a ngi yàq yàlla Lamine sama xarit la lépp li xaw sama kër Lamine Aïcha Fall ñëw fii xam nga lu ma la man aw ma noor ko Habib woowee ma ko man ku ma woo ma wuyu la mais ku ma woowul du ma sonn ci yow keroog bu ma kii di woo euh, ñuy dem Ibrahima Wade di woo mu ne ma damay dem jàkkee tukulóor damaa bëgg nga ñëw ñu ànd ak kër maam alaaji dama ñëw ànd ak ñoom xam nga lu ma la man ku ma woo ci Thiès ma wuyu la. yow réew mi xam nga bokk maa ñoom parti nañ ma woo Pape Diop keroog sama mariage du fii lañ ko gis ah da ngay xool Samba si. damay wax ca kaw Samba ni potam ku baax la ci réew Samba si mooy nekk ak Pape Diop ak booy xaadim bu dëkk Daaru Salaam xaadim sàmm bokk tam xaadim mu yaru mi nekk ci ci ci fukki buntu kooku gune docteur njaay la mooy xaadim sàmm ak buuba jaral ñun dañoo yaru ba yàlla def gàmm gi keroog fan laa gàmmoo kër maam Alaaji laa dem maag njëgeen laa demoon ci gàmmum daja fa ak Habib man ñëpp samay xarit la ñu Adja soxna si man aw ma noonu bëgguma wutal sama benn bopp noonu xam nga loolu waa réew mi man politique bii du tax man noonu ak waa réew mi. Cees ma daal ak luy defar kees su ma gisoon ku jógee ca àll ba yi ne man damay ñëw pour defar Cees dama naan kaa ñu ànd defar Cees nañu mooy def foofu balaa lu erreur di am xam nga su dul loolu élection yi ñu jëm élection yi metti lay doon nañ leen respecté ñu jox leen cër. dañuy jox cër man xam naa lu ci mu mari soutien waaw ñu mel ni ñoom Ablaye Dieye tey lu ñu def Thiès da nga leen gisal dégg dégg moo ngi ci bi di liggéey ah da ngay xool ku ku ku ku mel ni moom la ñu nga anam da ko gisati ana Babacar Pascal John ah ñoom ñëpp dañoo toog ah Macky ku am sax la am na fi ñoo xam ne ay doomu Serigne créé nañ mouvement di jàppale APR Serif Dia Nasir Dieng kere nañ fi ay mouvement di jàppale ay kii mais téyewuñ leen dañ leen téyewul waaw càggante am na ci lu wér te yooyu yëpp waruñu ko seetaan xam nga lu ñëpp kenn waruñu ci seetaan len man yàlla moo tax rek may wax xam nga lu ma la gouvernement bi ñuy def Macky génn ñu ci mën a jàppale su ma sañoon ñu dugg man ndax jàmm rek laay wut barke Seydina Mohamed xaw ma ca dara mais ma sañoon waa kër Idrissa Seck dugg. réew moo toll foo xam ne da dañoo jóge ci mbas suñ jógee ci mbas ñëpp dañoo war a waxtaan jubóo daa mel ni kër kër baay boo xam ne dama amoon histoire ñu ñu ñu war ko régler daal dañu taw waxtaan dañu waxtaan ñoom ñëpp ñu ànd liggéey Séné Sénégal moo ñu fi mu nekk Sénégal moo ñu ñor man dara ñoruma lu dul ci Sénégal ak kees yi ma dëkk xam nga lu ma la man loolu moo ma ñor. ma leeral aussi loo xam ne nit ñi dañu xamul Maleye euh, Diop sama xarit la dinaa fi wax benn affaire boo xam ne ñu bari xamuñu ko Thierno Sall diggantem ak Mamadou Dieng man maa ko dox ak Mbarim Diop Silla bu dëkk dixième Thierno ku gore la gis nga duñ demee ca suba ca dimanche kër soxnaam bi ñoo faat ba ñu ndekki Thierno taxaw ndeysaan mu ne mais ana dem jéene ko ah kooku de bu defee di muy def pare na ca jarul sax muy kii ndey ndeysaan xam nga loolu mooy kii am na wëllëre ci ci lii man maa leen dox maa ngi Marie Diop Sylla ba ñu toog waxtaan li ji am yëpp am ca diggante ñoom ak docteur Ndiaye man maa dox diggante Mamour Dia ak docteur Ndiaye ak Sidi Kassama docteur Ndiaye kan moo ko gën a sonn tey Thiès ku ko gënoon sonn ci parti bi lu ne la ci dekk anam mais tey wuñ ne niñ ña war a téye nañ waxante dëgg te dee nañ waxante dëgg te dee xam nga kees lan moo lay yitteel jaxase di jaxasoo rek xam nga man politique du tax ma réeroog waa kër Idriss Seck aduna jar jaruluma ko du ma ko jara ci aduna du ma xas jatal du ma xas benn mbeer ñoom ñëpp samay xarit lañu ñëpp samay njaboot lañu falaa ko téye kër may may sama doom Pape Diop ñëw na doo ko indi fi du wëllëre ah dama bëgg ñu xoolaat bu baax man awma kenn ak ku ma woo daal man dinaa la wuyu këru receveur de domaine bu jib si jib si bu muy dem di seeti kër maam Alaaji mais buñ ma woowee ma ànd ak xale yaru yi damaa dem ànd ak ñoom dama jog ànd ak moom ndax day dox lu baax daf maa woo man ku ma woo mais politique bu kenn defee ne man nit mun na maa accaparer ci wàllu politique ki ma ci yàlla booleel nga xam ne su ma ko nee alo mu ne ma alo ma wax ak moom muy ndey tikki man du ma suut jëpp su ma ko woowee rek mu wuyu am na ñoo xam ne boo leen wax am na directeur yoo xam ne barke Seydina Mohamed am nga kër Macky lan moo fi nekk ku falu boo xëyee suuf boo koy woo doo ko jox te nañu moytu élection local lañ jëm te élection locale yi war nañoo jëf résultat nee Macky résultat baa ngi nii te élection locale mooy atti 2024 te bu rafetul fii da ngay waar te mouvement ñàkk ñu fay de bu ñu leen toppatoo ba élection locale yi ñëw am na ñoo xam ne du ñu ànd ak yi dañoo kan moo ñàkk fayda di ànd ak ñoom ci loolu ku la yëgul man ñaar ci àdduna nee naa ajaa man nit suma lay wo duma la jot du la lijjanti suma la soo may nemmeeku dinaa la lijjanti nit yëg la am ma lay jóg noonu la demee mouvement Mamadou Dieng fa laay tëje mu leer bu ko ceerno rek de dem nañ ba ci biir Ousseynou juuf moo ma jël fii yóbbu ma pale ma ànd ak ay quelques gars ak ay conseil yu jóge réew mi bëggoon dem ñu rencontré ak Omar ma jël ku ñu wax Sadikh Sall moom Mamadou Dieng ñoom fondoo ñoom maase ñu dem ba Palais suivi amu ci ñu dem ba ci biir yàlla weddi Mamadou Dieng génn àdduna ma woo leen man leen mouvement bi bu leen xëy bu leen xool Mamadou Dieng mbiram ni naax saay Mamadou Dieng bu président demee bu ñu demee élection locale moo jël deuxième topp ci ginnaaw Idrissa Seck boo xoolee ñi am opposition bi ñi ñi àndoon local ñëpp Mamadou Dieng leen ëpp doole man loolu laa doon defar waxtaan naa ci ak Cheikh Ndoye moom it booy bu jàmbaare la moom ci noor bi ma ne ko ñëw leen ngeen waxtaan waxtaan naa ci ak Habib ñaa ma ne tey ngaa ñëw ma dajale waa kër ma Dieng ngeen man a waxtaan pour organiser wu ci noor bi ngeen xam nu ngeen di liggéeyee aw ma ci lu ma bëgg ma toog ma lay jóob yàlla def may maye sama doom ma woo ko mu ñëw bu mu ñëwee laata moo ñëw moom ma ne Mali yu mënoo ñëw jëpp parti kii Mamadou Dieng bi local kii kii Mamadou Dieng bi nga ko mu ne na ma ne mu ne ma dinaa ñëw ñu waxtaan mu ñëw ñu waxtaan ñëwal am na sam benn jarbaan moo ngi ci noor bi aussi Massamba Diop moom it ci ci foofu la bokkoon te ñoom ñëpp war nañu nekk benn bi Mali Diop na ñëwee nag mu ne ko man li nga li ma li nga bëgg dinaa ko def loolu moo tax ma ne ko mouvement Mamadou Dieng ku ko yëkkati ma ànd ci mooy gërëm aussi au gos boo xam ne moo ngi ci liggéey liggéey bu am sol mooy magay mbagay bu nekk ci mouvement Mamadou Dieng di gërëm aussi dooma bi Maodo Dieng ndax aussi noon na ne sama yëpp am mais feeñu ci loo ko ci wax mën a bëgguma ci dara du dëgg nañ liggéey rek man yàlla rek moo tax may wax loolu moo indi malay ma ne ko kon ñëwal ñu ànd ma jàppale la te mouvement Mamadou Dieng ku ji ku ci jàpp gëm waxul ma la ouest ak est ak nord Mamadou la am te képp ku nit ku baax fii man maa fi yóbbu Mamadou Dieng bu ñëwee nangu ma ne day yëkkati kii Mamadou Dieng bañ a jàppale soo ko wooyee mu wuy la kaay wuy si ma mu ñëw ma jàpp lu tax ah man damaa bëgg kat affaire Mamadou Dieng dama bëgg mu continuer loolu dong la nag ku ma ci am na ñoo xam ne ñoo ngi ci noor bi woo naa leen waxtaan ak ñoom mais soo leen woowee boo leen woowaatee doo leen jot ah man na du ma dox ci loolu nga xam aussi am nga politique ñaari ngëm-ngëm la bu dee gëm nga ne kii mun na ma cee jàppale ci lii ngeen ànd yàlla yàlla dogal yi munu nekk même wooyee mala yi mala xam naa ko xam naa ko bu baax booy ma sàmba ma sàmba ma sàmba jow moom sama jarbaal la yaayam fii la jóge ci grand caisse ah mais moom su ma ko wooyee mu wuy ma xam nga lu ma la su ma wooyee mu wuy keroog bi ñu jégeen di defar fii seggi fii da cee ñëw def ci participation ah keroog bu fii inondé Babacar Ndaw ma wax ko ko mu jox ma numéro ma woo bi ma woowee préfet bi maa wuy si ma woon ko fii ci lañ ko defar préfet bii ku baax la aussi xam nga lu ma man nag wàllu politique ku bëgg Macky laa ku bëgg it ay nit Macky di ma déglu yàgg naa leen ne doxal leen lii ak lii mais man ku ma yàlla booleel di nga xam ne du politik du dara jëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy alaaji Mor Gueye lu ma soxla mu defal ma yàlla ñu boole ak yonent bi Macky nag bëgg naa ko bëgg naa soxnaam sori kii boobu mu yor mu xool ñu mu ko dénk ndax euh, amul kees fondation Servir euh, kii amul kees ah man de gisuma ko fi te defe naa ne kees gi kenn mu mënu fi doxal loo xam ne yëguma ko man du dëgg gisuma ko amul kees gisuma ko fi wax dëgg yàlla fondation Servir le kii xanaa fondation Servir le xëy na beneen euh, Servir mais du ko biir kees de amu fi de man de gisuma ko man de xamu fu nekk waaw te lu yàgg-yàgg nag élection lañ jëm kees gii nag damay wax ak président nañu yokkal jox ñu ay direction comme ni sire Dia def ay emploi fii à Thiès xam nga Siré Dia emploi yu mu def su ko keneen continuer su ñu amoon ay direction keneen ñëw continuer ko kon problème bi am Thiès du fi am emploi lu mu def ma loo bañ bañ bañ bañ xam nga ne liggéey amul dana emploi amul kër gooy dugg fii sama kër de man sama kër mun naa ne man awma ci dara sama doom bi doon liggéey sax dañoo xëy wàññiku mais nag man ñooñu yoruñu wërsëgam ndax boobu ba léegi moo ngi lekk moo ngi naan moom laa maye mais man awma ci dara maa ngi ay jarbaat yoo xam ne ñoom fii jawar ay jakarta ah ay doomañ fii ay jakarta la ñuy dawal kenn mooy sama benn doom liggéey dégg mais Siré Dia lu mu defal Thiès man la ko defal ndax sama njaboot la ko defal amul kër gu mu defal yooyu yooyu mooy suqali Thiès gouvernement bi ñuy def ñu ñu continuer ci ñu continuer jàppale waa Thiès jox leen ci direction yi am doole yi moo am moo moo am solo buñ ko deful Thiès duñu am lu ñu bëgg ci biir Thiès xam nga lu ma la Thiès nañu jox direction yi ñu jox ko ay nit ñu kii li si réjal woon ñu continuer ko xale yi kon si wàll liggéey ndax wala yaa ngi dégg mbëkk mbënn meeg lu ne mbëkk mi lu ne amoo ngi am te ñàkk liggéey la boo toogee amoo loo jox sa yaay soo gisee ku la ne kaa ma yóbbu la gaal nga dem dugg ci ngeen dem man nag kees yàllaa ma boole ak ñoom xam nga yàllaa ma boole ak ñoom man dëkk bee ma ñor opposition ku ma la xam nga lu ma la keroog ñii ñëpp gunge naa leen docteur Djibi Sarr gunge naa ko Ibrahima Wade gunge naa ko Lamine Aïcha sama xarit la sama wala Abi Niang sama mbokk la du lenn xëy na politiquement man aw ma problème ak kenn su ma woy suba ma wuy ko mais male mi nga xam ne nag yàlla indi na ko nee na ma li nga bëgg dinaa ko def pour ma mën a jeex damay ànd jàppale ko dama bëgg mu leer ndax male aussi bennoo la nekk ba pare moo nekkoon mandataire foofu ba pare ñëw nag mu ne ma ne ma ko man liggéey moo mën a jeex mu ma soxal na ngeen ko yeggale ah conseil am yaa gi fi ar adjoint maire am yaa ngi fi gisatuñ kenn bunt bu ne lambu naa ko nanguwuñ maa déglu xam nga no problème bi dañ dañ ma déglu mais suñ ma doon dégloo lu bari am tey ay docteur Ndiaye yi war nañ mën a dem waxtaan ak ñoom Macky nañ jàppale waa Thiès gouvernement bi muy formé na yokk nañ yokk ba bari jox ñu ay direction yu am doole su boobaa nag mu xam élection lañ jëm locale de te élection locale mooy indi 2024 te ëllëg ñu xam yàlla moo xam kan la yéen it maa ngi leen di gërëm di gërëm seen njiit ci say latir di nit ku baax dama leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla yokk journaliste yi nekk cees yëpp samay xarit lañu am mi ay Babacar Ndaw ay Ousseynou Massiré ak ay Bëgg Falloo ñëpp samay wëlal lañu sama benn goro fii ñu ko wax El Bachir xam nga dugg na ci dugg na ci mbir gi muy def développement muy nit ku baax ku baax jur ko mook sama jabar ñu bokk bàyyi ku baax nag jur ko nag Oustaz Ahmed Gueye moom it na ko gars yi uuf jàpp ko jàppale ko ñëwul pour yàq dafa ñëw pour dimbale waa Thiès xam nga lu ma la xëccoowul lenn nag xam nga lu ma xëccoo day def day def développement am day def développement di li di jàppale nit ñi ci laay dox démb maa ngi moom ñoo nekk cene ba mu fekk ma fa dégg nga ñu dem kër sëñ Souleymane Seck dem ci cene ba yëpp wër ndax moom doomu daar loolu la gëm xam nga duma ma la te xoolal nee na fépp fu jumaa nekk moom dina fa dem julli àjjuma te nee na su boobaa maa yow ñooy ànd ma julli man lépp ku jëm ci biiru lislaam man ànd naa ci barke dem kër ab Ablaye Dieye laa gàmmo ma jóge fa dem gàmmoo ca Baye Fall ca seen maam Cheikh Fall man ku ma woo ma wuy la dimbale leen ma man aw ma noon bañ wa kenn ku fa fi dégglu naqar na mbaal président daal dimbale sama njaboot gi nekk kees nga jàppale leen su boobaa nag bu ñu liggéeyul nga xam te nga laaj nag ñi ngay tabb aussi ndax ñun xam nañ dëkk bi soo paree du ay ministre nekk ministre dara ne direction yaa ngi fi laaj ma kii bu ñu ko joxee direction nan lay demee ñu jox ñu mën jëlal diw jox ko loolu dong su boobaa dañ ne jëlal diw mais koo xam ne nag duñ la far rek ëllëg nga nga nga tëj say say téléphone de kenn duñu dugg duñ dugg ci loolu de yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ñu sutura waaw yokk leen yéen ñëpp daal. dafa leen jàmm sutura loolu kese la loolu kese man aw ma noonu ak kenn boo ma sañoon tey président mu ngi woo ñëpp ñëw liggéey jërëjëf